mu leer ma naañ ni li mu leer mu ma naañ aw ma aw ma ci woon lu extraordinaire mais mu leer ma naañ ne ay tappale lu leer la te lu ma doon gën a avancé nag xam nga dama doon communiquer mais contexte lu mu doon gën a dem may continuer di gën a communiquer mais période may communiquer yàlla dafa doon jox ay preuve xam naa sax benn euh, télévision boo xam ne wala benn chaîne YouTube boo xam ne dem naa fa émission pare ñu dàq journaliste parce que dañu def émission une heure de temps ci jamono yooya mu may ma temps mu décortiquer seen tappale yi ñu dàq ko moom it bi mu paree bi ñu ko dàqee mu jox may élément yoo xam ne daf ne moom bul ko wone fenn mais télé booba ci comploteurs yi la bokk li ma lay wax nii lu sérieux la comme réew mi tension dafay am jërul joxe ay détails mais yàlla xam na ko parce que man ku ma xam-xam ne du may inventé lépp lu may wax ci dëgg laa koy teg man damaa juum nag parce que du yàlla du ma yonent bi lii am na ci dossier bi boobaat loola ba mu amee journaliste bañ dàq ne ma man maa ngi lay ñaan bul wax sama tur fenn bul cité organe bi fen mais dama la koo jox pour dëggal li nga wax démb ci émission bi ñu def man ak yow parce que dañ ma ko reproché ni démb dama la bàyyi nga xaabaabal wax loolu a neex mu ne man nag comme dàq nañ ma dama lay jox information bu leer nañ télé euh, ñun sunu chaîne boobu ci complot yi complot comploteurs yi la bokk ce dossier là c'est un dossier monté contre Ousmane Sonko pour tere ko mu nekk candidat 2024 keneen ku la wax lu dul lii mi ngi ciy caaxaan parce que man ma Moustapha dama gëm man ni bés penc yàlla day atte ku nekk ci li nga fi def ci lu baax ak ci lu bon mën na la atte nag ci yërmandeem parce que àjjanaam moo ko moom moom safaraam mm-hmm. kon nag man comme xam naa ni bu lay atte da lay atte aussi ci say jëf rus naa fee taxaw di seet lu neex nit parce que Ousmane Sonko demul ma fe man bokkuma parten demaluma fenn Ousmane Sonko mu nekkoon président de la République du tey man li may dundee laay dundee mais sa waay la nag non non non demaluma fenn non Ousmane du sama waay bu ñuy wax sa waay mooy koy xam da añandoog moom di reyandoog est-ce que xam nga Moustapha mosuma dem kër Ousmane Sonko mosoo fa teg sa tànk xam na ko mosuma gis bunt kër ay rencontre ngeen di daje rek kooku xam nga ko du sa waay parce que man ñi nekk sama waay damay dem seen kër ñu ñëw sama kër ma xam seen soxna ñoo xam sama soxna mhm. ma xam seeni doom ñoo xam samay doom Ousmane Sonko xaw ma doomam xaw ma benn jabaram xaw ma euh, euh, këram euh, xam naa ne si te kër goor gi la këram nekk mais munu man la bii mbedd moo fay dem sax xaw ma ko yàlla xam na ko mosuma faa dem naam nag tey ji ak situation bi muy dund ni suñ dindee barricade yi gëm naa ne naa fa dem seeti ko incha allah mais Ousmane du sama xarit mhm. Ousmane du koo xam dañuy waxante tout le temps. lu si dëggaloon combat bi. waaw mais mais dëgg rek xam nga man dama gëm ni man leader d'opinion laa au Sénégal mun ma toog gis ne ñuy jaay doole nit ma am lu ma am yëg-yëg. ci ni kii leen koy def nii jaay doole la parce que leen koy singalee dafa yàgg cest à dafa nekk fonctionnaire ñu jaay ko doole dàq ko fonction publique mu jóge fonction publique te décret bi même bi ñu koy signé ci parax parax lañ ko signé bàyyiwuñ ko sax parce que man xam naa ne ñuy dàqee fonctionnaire fonctionnaire bi ñu lay dàq dañ war a yóbbu commission de discipline commission de discipline da nga fay ñëw ànd ak say say avocat ba noppi ki nga tollool grade ci biir fonction publique ten faloon ko pour mu défendre fonctionnaire yi mooy ñëw toog moom administration bi tamit ñi ci war a bokk bokk ci ñu ab commission lay doon bu lay entendre yooyu yëpp ñu defi tappale ba defuñu ko normalement pour bëgg koo dàq jaay ko doole ne Macky Sall signal décret bi pour radier Ousmane Sonko ñu radier ko malgré ça sénégalais yi def ko député naam plus fort reste la jàlle mais plus fort reste mu jóge ca sénégalais yi def ko euh, euh, mu mu nekk maire mais mu jóge ca dem élection présidentielle aussi nekk euh, le euh, candidat bi ci ëppoon doole presque même c'est que troisième position la jël mais ñëpp xam ni kii kon mi ngi def mais monter en puissance léegi am ay près de pour cent yu tegal ci élection présidentielle boo bu metti la woon nga xam ne ay coalition yu mag la jàkkaarloo woon moom c'est vrai que am na ñu àndoon moom mais coalition yi gënoon a mag c'était la coalition du président Macky Sall ak coalition Idriss Seck yooyu ñoo doon coalition yu mag yi mais Idriss Seck ëppale wu ko dara presque euh, Macky Sall nguur gi mu woon la si loolu du duñ ko woon gagné te man damaa gëm ba léegi nii ñu toll 2019 élection yi daa waroon dañoo waroon am deuxième tour man loolu laa gëm. ok donc Ousmane Sonko moom ñu koy jaay doole bañ ba ba ba nga xam ne Macky Sall comme élection bu mu jub ki ko nar a sonal da koy éliminer ma gis ni kon bi élection 2019 yi jàllee Ousmane Sonko mooy nekk cible bi ginnaaw bi Khalifa Sall Karim Wade jàllee yi nekkoon ay cible Macky Sall ci élection yi koy jiitu léegi comme bu 2024 lañ jëm il fallait même bu ñu woon affaire suite boote bi Macky Sall ci ni muy doxalee ay feemam mooy. élection bu mu jub kim yaakaar ne moo ko nar a yàqal day def pexe pour éliminer ko léegi nag moo tax ñu def pexe pour di ko jéem a éliminer ñu daal dem wut ab xale bu jigéen euh, Adji Sarr daan ne ko fexeel ba jiñ Ousmane Sonko ne ko da la violé parce que booba ñoom dañoo toog dégg Sidi Amène Bay ni leen ñoom Mamour Diallo mooy ñi doon tëgg affaire bi effectivement Sidi Amène Bay ni leen am naa sama benn xarit bu tudd Adji Sarr boo xam nee na salon ba mu doon liggéey dañ ko faa dàq nag mais salon ba mu doon liggéey Ousmane Sonko daf daf fay dàmpo ñu ne laay lool duñ ko kenn loolu kay duñ ko gëmee mu ne ah liggéeyatu fa de ñu daal di jëli Joor Jaañ pour ñu defi pexe pour ñoom ñu teg seenu complot pour delloo waat Adji Sarr Sweet Beauté loolu c'est important loolu mooy premier acte complot bi Adji Sarr dafa jóge woon Ndeye Khady Ndiaye da koo dàqoon <laughs> da koo dàqoon léegi nag kon il fallait nag ñu wuti pexe pour mu dellu ñoom delloo ko Sweet Beauté Adji Sarr dafa dellu pour tëggal leen complot bi loolu c' est important loolu nguur ñu koy fàtte ca ñu bëri li li nga wax ñu bëri euh, ko dàqoon Sweet Beauté nañ ko fa mais dañ ko faa delloo pour man bi parce que il faut la ñu am lu ñu jafandu léegi nag bi fa ñu delloo Adji Sarr nekk loon kan moo ko informé ne Sonko dafa daan ñoo comme jóge woon na ci boppam moom ci boppam moon leen Sonko day ñëw ci salon boobu moom moo ko mais mais fekk na jàppante waa jóge na fa léegi nag jàppanteeg euh, Ousmane Sonko. Euh, jàppanteeg bi mooy Ndeye Khady Ndeye Khady dàq ko parce que Ndeye Khady dañu fenkat la te moom bëggul ci salon koo xam day fen di xam naa di wax affaire yooyu donc euh, ak jubul yooyu la ko jiñ daal jiñ na koy affaire daal daal ne moom mënatu la def ak moom dàq ko léegi nag bi mu ko dàqee moom Adji Sarr nag moo dem nettali ne moom salon bi mu doon liggéey Sonko dafay maase wu léegi nag loolu moo tax moom nag biñ ko andiwaatee dafaa ñëwaatoon uniquement pour daaneel Ousmane Sonko ñëwaatu fa pour leneen. looloo tax bi mu ñëwee Sonko nag gëj fa mu ci la looloo tax jëkkër Ndeye Khady Ndiaye doon wax ñëw naan ma waaye yow euh, tonton Coulibaly Sonko kañ lay ñëw <laughs> xamal ma la mais Moustapha dañu waxante dëgg loolu rek doy na sëkk témoignage boobu kese doy na sëkk pour ñu xam ne ñii ay tappalekat lañ bi mu demee noonu mu ñëw Sonko ñëw et puis rijaal lem wax ba nga xam ne tey jii daw na mais mooy gendarme bi doon sol yére Baye Fall te doon jàppante ci beddu suite boote bi di dem ak a ñëw mais Rijaal moo waxal boppam ne euh, effectivement euh, lii complot la yore këllam di màjjal pour euh, di xool lan moo nar a xew suite boote yaa may xool pour que bu Ousmane Sonko ñëwee ñu informé donc Ousmane Sonko malheureusement ñëwul. non si je comprends bien moom ci mbir mi la bokkoon. kooku yoroon këllam parce que moom section de recherche kooku débat da cee am. Mhm. débat bi ci am mooy ñii dañ ni moom. parce que moom rek moo mën a leeral loolu. ñii dañ ni gendarmerie moo bëggoon xam lu tax police doon jàppante foofu lu bari. ñii jéem a euh, na ñu am version boobu ne mais en tout cas ñaari corps yi dañ fa nekkandoo. ñii ni lu tax gendarmerie de dem fa ma da doon gis ni du génn bi daal période boobu xawoon na suspect. il fallait ñu am des informations am ñu ne non c' parce que ñoom aussi ils étaient dans le coup mais en tout cas Ridial moom comme daw na te deful benn interview. nit ñi mun ñu xam réellement mais Rijal moom mun na leeral lu bëri ci ci complot bi. ok léegi léegi nag li am mooy man bi mbir mhm. amee. Mhm. man damaa taxaw man dàmbooj ñëpp di ma dégg Sénégal gépp di ma dégg man leen lii ay tappale la. Adji Sarr kenn violé wu ko ay tappale yi neen moo ci nekk Macky Sall ak ñi mu àndal nguuru Macky Sall ñoom ñoo bëgg a daaneel Ousmane Sonko ñoom ñoo wuti pexe Macky Sall nag comme ni ma ko waxee ci sama émission boobu ma lay wax au départ mën na maa jum ci samay analyse te ba léegi nii loolu laa gëm mooy bi mbir mi naan bërit jàpp ma man ni moom moo ko togg man gëw ma loolu. gëmoo ne gëw ma version boobu. bokk na que Macky Sall taxaw gëmoo gëmoo complot. non non non non complot bi kay complot bi kay. gëmoo gëmoo ne am moment bu nekk ku ne ban ban moment rek ci complot bi. mais mais bi kay. comme état bi dafa dabe voilà dafa dabe man loolu laa gëm dama gëm ni dafa dabe. dafa dama gëm dafa dabe que ñaari version am na sax ci nit ñi waxee noonu la ko yëgee parce que Malick Sall taxaw na ni. moom mook ko yëgal Madiambal Diagne dégg ngeen mu taxaw wax ni bi bi mu ko bi mu ko yëgalee Sall Macky Sall daa euh, daa daa daa jaaxle woon Malick Sall wax ne conseil des ministres lépp moom moo ko yëgal ku ci ne ne maa ko yëgal Macky Sall donc déjà ay tappale am na foofu man li ma gëm mooy Macky Sall ba mu ko yëgee au lieu mu arrêté ko comme ni muy def nee naa dossiers yi mën a taal Sénégal ba mu ko yëgee dañ ne alhamdulilah man loolu laa gëm man damaa gëm ba mu ko yëgee. daa na daani alhamdulilah mais man li ma jàpp mooy complot bi bañ koy tëgg ci Mamour Diallo la départ maanaam parce que Mamour Diallo la Ousmane Sonko jàppanteel daa di koy euh, wax ne ko yow 94 milliards moom nga diigal bi mu ko taqalee 94 milliards yi coow loolu moo tax Macky Sall daaneel Mamour Diallo loolu c'est important léegi nag Mamour Diallo ku xam di euh, euh, direction des domaines ak ne mu neexee ñu jële la fa ah. léegi euh, kala ka tax ñu jëlee la fa nga xam ne révélation moo tax nga jóge fa nekk sa collègue da nga koy mere loolu la mere Ousmane Sonko encore une fois léegi nag muy wut moom pexe bu mu fayoo far yëg information que Ousmane Sonko day day dàmpoo

Euh, dugg ci yoonam nekku ci mais Mamour Diallo dañ koy convoqué Mamour Diallo waxuma dañ koy convoqué mais aujourd'hui dañoo waroon a bokk ci ñen tegi daan mhm. Mamour Diallo xamal dañu war koo tegi daan parce que Mamour Diallo moo waxal boppam ci audio boo xam si Adji Sarr moo ko enregistré ñëpp di ko dégg mooy audio 18 minutes bi mhm. bi mu naan tëjal leen ma porte yi ak fayal leen ma clim yi baal ma fay sama téléphone bala ñu maa woo ñu bàyyi leen macro bi nekkoon ci salle beeg ñoom Viviane daal di génn ñoom ñëpp ñu dem mhm. ñu bàyyi leen ak Adji Sarr ñu bàyyi Mamour Diallo ak Adji Sarr loolu euh, audio bi Adji Sarr a enregistré Mamour Diallo mu leer na léegi daan dama bëggoon ñu ñu ñëw ci li li li ñu koy toppee. Mhm. verdict bi bàyyi fa. waaw effectivement donc loolu c' est important ñu fàttali li taxoon ma taxaw man ni. kii kenn violé ko li taxoon ma wax ko mooy daf maa leer man ni booba ay tappalay kese lañ nekk. koo xam dafa ñëw maasewu maasewu waat ba tàyyi te moom mosu faa def lu jëm ci loolu nga naan fu euh, daf maa daf maa fu mu fa mos a ñëw dafa ñëw di ma violé ma toog ba càgg mën a déjà accusation bi rek déjà wanoon na ma ne ay tappalekat lañ parce que doon gis ne ay tappalekat lañ parce que l'accusation a été très mal faite maanaam scénario bi ni ñu ko defee moo ñoo aayul kenn jigéen xale bu jigéen bin jaaree euh, du woon euh, vraiment un bon Euh, un un bon euh, voilà doon doon doon candidat bu baax boo xam si moom nañ ci jaare mais tamit liñ ko accusé baaxul parce que euh, buñ nee daf ko violé violé waat ko lu mat juróomi yoon loolu tappale weesuwu ko donc loolu moo tax man musuma musuma am benn dut ci nit ñi ay tappalekat lañ moom kenn kenn kenn violé wu ko moom aji Sarr maintenant léegi nag man ba ma ko waxee ñu bari dañ doon wax naan Dame Mbodj li muy wax fan la ko teg ah Euh, wóorul dina am gàcce yow mi sax def nañ émission parce que ci ñi ma ci njëkk jël nga bokk. Mhm. journaliste yu bëri gis naa benn journaliste bu naan euh, bu ma message naan ma parce que daf maa bëgg a invité comme.